Sadio Aguero muy préparé pour dugg saa nii Sa Thiès day préparé pour dugg ci match bi tey diggante Fajarteel ak euh, Framaren Fajarteel bu Modou Amar Modou Amar moo am équipe bu bu mu tudd Fajarteel Sa Thiès a noonu Sa Thiès moo préparé pour dugg rakk ci Balla macha allah Sa mu ngi noonu mbokk ndey koy jur tey làmb ak. Euh, seen seen mooy pari yu ñaaw yooyu noonu. mais mais champion ngi noonu di préparé Sa Thiès Sa di préparé pour dugg mu ngi noonu di sol li nga xam ne mooy mu ngi noonu champion. mais champion baa ngi noonu di préparé pour dugg. ki mooy Sané mu ngi di préparé pour dugg. mais Idi ragaloo de champion baa ngi noonu. non non non champion baa ngi noonu bu champion baa ngi noonu waaw ngi noonu. mu ngi noonu Modou Amar naan ko boy mu naan ko fajatel muy Sadio muy mu ngi noonu di préparé. rak ci Balla mu ngi noonu di préparé macha allah champion. mbër fooy fubal moom la gars yi di laajte fooy fubal la gars yi di laajte <laughs> tout cas mu ngi takk godaji de ah yéeme na de woykat baa ngi ñëw de daa mel ni mooy dëgg deuxième mi-temps woykat dugg deuxième mi-temps Sa ak Wally daa ni ñooy pare deuxième mi-temps bi de ñoom ñaar doy de xam naa Wally bu ñëwee dëgg deuxième mi-temps woykat bi bon salam pare rek mu ngi noonu di ñëw dégg naa Waly mu ngi ñëw mais sa Thiès a ngi dugg si xam naa bu dugg see frère ñëw muy Waly Balago Seck ñoom ñaar ñu duggandoo terrain bi yow xanaa lépp oh, football. yaa ñu daral baa ci liggéey bi. yow yi daal di tey bu ñu demee ba am sañ bu tee micro. Mhm. grâce à toi. da ngaa bëre rek daral baa yaa ñu tete. da ngaa tey ñu gis macha allah weeru koor yaakaar naa di weer boo xam ne weer bu yàlla suñu borom euh, tànn la ci fukki weer ak ñaar allah tey euh, tey am na ñoo xam ne bu dee dañuy tëdd mais ñu jeunesse bu ñu euh, reeree dañuy génn football yi en tant état bi lan nga lan ngay lan ngay tànn ci loolu. xam bokk ci li nga xamante ni day defar yaram sport dafa baax tey weeru koor nga xam ne dafa metti te temps bi amul. mais léegi nag bu nekkee da nga dogu rek tëdd après loolu mën laa andil ci feebar parce que euh, mën na am euh, problème sa case de santé. Mhm. mais tey nga comme ni dafa rafet est-ce que ça veut day dajale waat dafa nekk tey maanaam vacance la quoi en fait lii dafa rafet quoi mhm. tey tey tey ñu gis fi ku nekk gis nañ fi Sa Thiès ñoo fi mbëri yeeg bi nekk ñoo fi tey euh, gis nañ fi artistes yi woykat yi tey loolu lan lay def waaw xam nga maanaam li ñuy wax Sénégal benn bopp la kenn mënu koo xam mhm. tey Sa Thiès ñëw na fii xam nga maa ngi ko koy wax sànq mu ngi bari préparé combat am ñëw ah sport parce que tey sport bi maanaam adduna dafa dépassé cadre kii mbër la kii jour la kii lii la war a def kii fii la war def mm-hmm. ñoom ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi mm-hmm. Sa ñëw na fi war ñëw fekk na fi ay magam fekk na fi ay paxam mm-hmm. fekk na fi ay soppeem li day wane ni carrément daal mbooloo benn téléphone mais guy gi en français

un même asamaan. Mhm. union fait la force. Mhm. Mhm. tu parles même quand tu Wally Seck le le centre du peuple le du peuple en français. bon Wally euh, si je parlais avec Wally. jusqu'à demain je n'ai pas terminé. parce que c'est un gars très socialiste. Wally elle a fait personne ne la Wally elle a fait beaucoup de choses mhm. sur terre personne n'est pas connu mhm. euh, je parlais un moment mhm. comme maman de Wally vraiment c'est là un moment maman Diaga si les personnes eh, dorment oh! maman Diaga n'est pas dormir il est réveillé matin réveillé soir réveillé nuit maman Diaga elle n'est pas temps pour regarder son chaque jour il est fatigué pour les personnes. Mm-hmm. Mm-hmm. ceux qui partaient sur les hôpitaux. Mm-hmm. Moi, je partais au hôpital. Mais je regardais Maman Diaga, il est fait. Moi, je parlais Maman Diaga, il est Maman de Wali, il n'est pas. Mais vraiment, c'est ça que il est personne, il est arrivé à la terre. Comme c'est ça que vraiment Wali, si arrivé aujourd'hui, accompagnement avec toute la famille, si tu regardes toute la Ramadan, Wali, il est, il, est, il est fait un saïd, il est fait un bolo, il n'est pas séparé. Il est arrivé hier, tu regardais Wali, il est arrivé à la terre football. C'est ça que Sénégal, il est en tête, mais Wali, vraiment. c'est un bon point. Mhm. merci beaucoup Guy gi Guy 95. gars yi débarqué leen ngir yàlla kooku bisu ko passé. bu ko topp bu ko topp bàyyi ko foofu. eh sëñ Saalum toog foofu fekkee dañoo koy taxaw. voilà na ngi sa kaw. baax na sëñ Saalum. kontaan naa waay marquage bi nii day door. kontaan naa. sëñ Saalum am nga ko sëñ Saalum am nga ko léegi noonu lay def jeex na jox ko waaye kontaan naa. xanaa di ànd ko la xale moom mënoo ba dee dooral ko moom. Fallou Fallou. oh. Cheikh Cheikh occasion fu war ko ba mu jeex dégg nga fis kay bale ko loolu jeex na